Euh, am na lu baax yu bari amna na ay yu bari nga xamanteni mu fi donc ak yooyu dañ koy conserver jéem nak dem parce que innovation yi bokk na ci commission bi nga bu la doon wax non ñi ngay wax naan dañu am compétence ñu ngi ñu ci bari pour la plupart d'entre eux man ma leen formé ñenn ñi formation formation sur le tas leen defal donc même bo amé bo bo jappé né ñi nga xamanteni ñoo fi nekk ñu ñëw amuñu expérience bi am na ñu leen mëna former ñu leen mën accompagner beneen moy tamit ñooñu ngay wax ñëpp j'ai travaillé avec eux xamante nañu maanaam campagne dafay am kenn ku ne dafa ambition ñoom bu ñu amee ambition dañuy dem suivre seen ambition man ma poursuivre sama ambition ça ne veut pas dire que ne fraternité bi amul ba léegi ça ne veut pas dire que ne relation yi ñu amoon ba démb tey la gën a gën a am ñoom ñëpp waxtaan naa ak ñoom ils sont prêts à à m'accompagner. kon anam yi nga fekkee zone daal baax na ci yow motivé na la wóor que ni nga am nga ci teg teg fekk nga ko ci loxo yi ci lu wóor loo xam daal après mën nga ci am ay base pour dem. bon bien sûr pourquoi changement kon su dee anam yi nga fekk si zone bi kay tout est ok. pourquoi changement on on on, pouvait on on pouvait continuer. non non dafa ndànk dafa ndànk dafa ndànk tout est ok. dafa ndànk waxuma ne waxuma ne amul amul amul na nit ki matul ay jëfë mënul mat. moo tax ma ci yeen anam nga ko fek. lan la ñu war a yóbbu manquement yi ban ak fan ak fan la La laal point manquement yi ñu xam fan la. mais manquement yi jarul ma koy tudd. pourquoi may tudd ne fi manquement la fi manquement la te man xam naa ne fii laa war a jëm. ñii du man ak yow mais ñii seetaan dëkk yaraax ay jeunes yaraax yabal leen ci instance bi toll nii ñooñu ñoo soxla xam manquement yi. mais man xam nga la laa bëgg. waaw xam manquement yi wool le président bi fi nekkoon nga posé ko la question. non yow lañ dénk bu ñu loo xam ne de non dama ni bu ñu xam nga otage bi ñu doon il faut qu'on assume par rapport suñu responsable. kan mooy président zone nga nga ñu jël benn mbir dénk la ko teg la ko am na anam ñu ko joxee war nga mën xool ne anam ñu ko joxee manquement bi manquement bi bi la bëgg def dafa ndànk yow manquement nga ma laaj manquement tank tank ya yaa ngi wax manquement rek tu deviens subjectif manam yow da nga bëgg gis li baxul man damay gis li bax man y a des acquis et man bo may laaj da nga may laaj lan nga bëgg def man ma ma projeté ay perspectives mais pour pourquoi nga bëgg ma obliger à ce que ma xool li li baxul ci ci ci li baxul xamna non je je dis pas que tout est ok tey président anam nga zone bi président bi. waaw zone dafa ay ay ay quoi tout n'était pas rose pour dire la vérité. Mm-hmm. parce que rose mooy euh, bu amone donc rien donc euh, ay ay incompréhension entre les délégués Il ay euh, entre les délégués donc bo ñëwé tiim caméra yi ne lépp tout était ok da ngay da ngay da nga mën nga mën nga mën nga ñu lay sant mën nañ la mën nañ la mën nañ la xeeb quoi mën nañ jàpp ni yow kon fi nga jëm ni doo fa doo fa def doo fa def dëgg quoi amoon na ay ay ay ay ay incompréhension entre les délégués amoon na ay malentendu entre les entre nous les délégués suñu biir mais n'empêche après les élections on s'est retrouvé man personnellement bi bi élection yi jàllee seeti naa euh, toog ku nekk moo seetlu la si ñi àndul woon ak man ku nekk dem naa si yow waxtaan ak yow pour rek ñu ñëwaat euh, nekkaat ensemble nekkaat benn. te alhamdulilah ñi ma seeti ñëpp dañ ma ni nous sommes prêts parce que c'est Yaraax la commune de Hann Bel-Air donc euh, lépp rosul woon ah franchement. waaw lépp rosul woon c'est la commune Hann Bel-Air qui gagne bu ci ëpp importance rek mooy jàngat bi ñu ci war a def rek mooy fi nga ko terminé mooy fexe ba ñëpp dellu si waat nekkaat benn.

gis ci seen bopp ça c'est important sur sur sur sur sur lépp lu mën leen aussi di wax ne rek di wax ne rek man ku ma xam personnellement du ma nit ku ñuy tënk parce que nit da ngay am sa fulay bopp man dinaa travailler ñëpp nag je suis assez ouvert pour travail ñëpp dinaa déglu ñëpp dinaa waxtaan ak ñëpp dinaa tenir tamit considération ci conseil yi ma nit ñi di jox waaye du ma nangu kenn kenn kenn kenn tënk ma loolu moom dama dama koy wax parce que sama dignité moom ëppal lu mu mën doon bu ma naroon am sama dignité ma bàyyi lépp

loolu la quoi nga président sa vision par rapport au football Yaraax rawatina mouvement nawetaan. man nag dama xam nga dama xam xam dama farak joueur yi quoi. Mhm. man euh, la plupart des amis de mes amis ici à ce sont les jeunes ce sont les joueurs. Mhm. je pense élection est sax su jour me mooy voté damay tok toog suma quoi. Mhm. parce que toutes les ASC des <coughs> des deux zones j'ai que des amis joueurs man euh, dina ko travailler avec suma comité directeur parce que. je serai jamais un président boo xam damay taxaw nii rek micro yi ci moom ma wax loolu laa gis si aussi suma suma collègue président tout le temps ñun dañuy dem retourner à la base comité directeur je tout pour que les joueurs yëg seen bopp ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi nawetaan yëg seen bopp bokk si cest dire bokk si le mouvement nawetaan quoi c'est-à-dire joueur du ma tuma jaas waxtaanee suma comité directeur bëgguma joueur bëgg naa bu ñëwee SR sax bu match jeexee bu ñëwee SR sax

je rêve de ça man man suma rêve yëpp si football yalla li ci gëna kawé moy les joueurs les pratiquants d'abord. parce que les pratiquants gis nga ñun suñu liggéey lu mu baax baax baax les pratiquants su football bi noyé wala ñoom gis ñu sen bopp parce que des fois les gens oublient que les principaux acteurs du mouvement en navétane ce sont les joueurs man lola gëm. par rapport aux emplois. par rapport aux aux emplois on va. On va dinañ def ay formation parce que. Euh, en discussion avec le président de, de, de, de l'ONCAV muy euh, Amadou Kane emploi amna, chaque ASC am benn euh, emploi bu ñu fa instauré yooyu yëpp ay projet la yoo xam ne suñu njiit yi si kaw ñu ngi ñun aussi dinañ fexe comme am nañu ay représentants en cadre, dinañ fexe ba ba indi ko si commune c'est-à-dire cette année ak durant suñu mandat parce que sans ba léegi su may wax moom suy wax man ak moom lay wax man su wax man ak c'est-à-dire cette année il y a deux zones il y a deux présidents mmh.

jot leen benn financement ODCAV ñëw ci zone ñëwul ay financement emploi boulangerie des trucs mooy loolu. waaw man kii <laughs> voilà voilà man à ce qui me concerne bon ñun dañu maa maa ngi la koy wax sànq danga ma dagg mais foofu lañ ñu doon waxee maanaam y a des projets socio économiques y a des projets socio culturels yu nga xam ne socio éducatifs yi nga xam ne ñu ngi ciy. ban ngeen ci jotoon je suis nouvellement élu. mais tu tu es concerné subvention euh, pour projet d'emploi mais on projette des projets

Nous suñu suñu wax rek en tant que fi ñu nekk tey ñu ngi position stratégique orientation du le sport en ce qui nous concerne nous fexe créer un cadre cadre attractif ci lépp organisation parce que nous ñun jouer mais mën nañu un cadre bu nga qui ne acteur bi dafay épanouir ci biir cadre boobu loolu mooy suñu rôle le mouvement donner une bonne image du néo-étan. parce que le étan la violence il est taxé tout le temps il y a des du du culture mais donc la jeunesse bi population aussi nous rénovation faire de sorte que retombées yi am ci nous, avons dañ ko war a bokk ak partager financer Si bëggee jënd joueur joueur bëggee joueur bu amul nga ASC jot lu en charge joueur am ci jëndal am am assez en charge euh, frais médicaux ainsi de suite ainsi de suite donc créer un cadre ça veut tout dire du lu ci plateau mais dañuy joxé point yi nga xamanté mom moy vision bi nga xamanté ñen ñi nga xamanté ñu nek à un niveau tactique ñi nek à un niveau opérationnel kenn ku ci lan la ca war di nga ci def parce que lu ñuy partager équipe la bu ñu bokk dañuy travailler sur ci ci vision bobu pour fii bu suñu mandat yi jeex ñu évaluer kat ñun fi lañu ñu jóge le mouvement nawetaan fi lañu ko jëmee. waaw jàpp ni leer na par rapport ci vision bi ci mouvement nawetaan waye tay ñu nek fi ci terrain mobile stade municipal Hann bi tay mu nek ben trésor ci ñun. suñ toogee fi rek ñun tey suñu xel mën a dellu ba ci 91 première année bi ñuy football fii ci terrain mobile 91 la woon première finale fi ñu jouer fii Kazanka Mbaxal la woon quand yi ñu taxaw fa Baba Ndiaye fi la dóore penalty rate ko premier mi-temps en deuxième mi-temps fin temps Baba Ndiaye fi la dugalee bit bi en 91 diggante 91 ba tey ci at bii ñu ñëw tey ñu tegal ñu benn trésor bu mel nii indi ko fi ñëpp nangu nañu amagul Dakar ñëpp nangu nañu du financement état.

donc lu ñuy lu ñuy wax dëgg et puis di ci sant yàlla di ñaan aussi ñëpp ñu bàyyi ci xel ne ñun ñoo ko moom suñu suñu yëf la te waxtaan nañu sank ak ingénieur bi wala ñu commencé émission bi wax nañu qualité wu li fi né donc nak ñun buñu amé chance am qualité boobu nag li ci li ñu war si ñun mooy sàmm ko kenn ku si ne def ko sa yëfu bop bu yàqu ci kenen la yàqoo way warul yàqu si ñun warul yàqu lolu moy li nga xamanté ne li ñu war a def moy warul yàqu

nous les acteurs du mouvement nous voulons nous impliquer. Parce que personne ne peut parler sport sans nous. Personne ne peut parler sport sans nous. Comme la commune, comme la commune d'Alifort Foray. Personne ne peut parler sport sans nous. Donc, la gestion est impliquée. Les jeunes aussi, ils sont assez responsables. Ils savent ce qu'ils veulent faire. Ils savent ce qu'ils veulent faire. Et ils ont une responsabilité. Ils ont une responsabilité. Ils ont une responsabilité. Nous ont une les Ils ont une responsabilité. C'est ce que je veux dire. Je veux que tout le monde, tout le monde,

compétition baxna na compétition dafay yokku nit compétition dafay yokku nit mais esprit compétition biñu wax fair play la nit ñi wara am tay man damay jouer yow nga gagné ma est-ce que du man dama wara a ndax man amna ay manquement manam ci ni ma ni ma préparé ni ma disposition yi ma waroon est-ce que man entraînement bu doy na ainsi de suite comment nga wala bok ma am objectivité ki kii kat dafa am force bu mu am te amuma ko naka laay def bu wuti force bobu non lañuy non lañuy non lañuy noonu concevoir compétition moy tax yow nit ki da ngay évoluer tout le temps mais du damay mer non non non non ni nekk nekk nekk nu mauvais perdant damay yàq nii dañ maa xeex dañ maa nangam non non on va essayer nag à à notre niveau de de de de faire de sorte que qu'il y ait une justice maanaam ci organisation bi kenn ku ci ne boo amee gain de cause nga xamante ne yow gain de cause nga am du ay ay parce que yooyu tamit moo indi frustration yi mën a indi violence quoi voilà. président ça jangat. waaw di remercier comme ni ko président waxee wax na aspect yu am important je pense que du ma si du ma si du ma si le maire ak son ak ses conseillers bi nga xamni ak bi aduna euh, nag so amé lu kenn amul da ngay compo da ngay am comportement bu kenn compo comportement bu kenn deful quoi. Hmm. c'est-à-dire euh, so amé lu melni nga xamni rêve la ci tout un peuple Sénégal ñep am ko ñep bëgg ko am. Hmm. su ko yalla dimbalee da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay euh, defaraat si taxawaay hmm. maanaam muy commencé ko ci football yaraax il est temps vraiment il est temps quoi c'est-à-dire tu peux avoir cette pelouse là bi nga xam ni ingénieur millions sànq Juventus qui am nañ ko bu mel nii ba pareil, le football ne marche pas on peut avoir ñun rêvé wu ñu am nawetaan bu sut le football quoi. franchement on rêve football yaraaxuwaa nekk si kaw nawetaan ñëw tegu si parce que mon mot élite on se souvient de xam-xam et donc il faut que les gens buñ ku ñëw fii le football yaraax intéressé la ils ont ba si terrain bi war nga arrêté lépp luy këreel bu sais pas war nga arrêter lépp plus intérêt personnel bu dee am na nga xool la jeunesse les écoles de football les centres de formation les équipes nationales ñi nga xam ne war nañu gagner fii mais lenn léeg moo leen ko moo leen coincé mooy les joueurs ñu am des internationaux comme ñoom am di fay lenn mooy baare mooy les dirigeants hmm. il faut que les dirigeants taire leur querelle hmm. il faut que les dirigeants se trouvent retrouvent autour d'une table li ngay blâmer que mouvement nawetaan damay élection mais bu bu ko jaree football yaraax pour ñu toogaat ñu nañ ko def nañ fexe bu ñu waree toog si benn salle def campagne def lépp ba trouver wu ba trouver un bureau pour doxal football yaraax nañ ko def Ibou parce que y a des joueurs yoo xam ne ils vieillissent et pourtant ils pouvaient gagner sur le football mmh. parce que amuñu des dirigeants yoo xam ne dañoo téye football yaraax teg ko axe bi et pourtant dirigeants yëpp koo si ubbi xolam football moo si nekk koo si ubbi xolam football yaraax la bëgg mu développe mais quel est le problème Pourtant, pour y' a un problème parce que nous une équipe bu euh, coupe du Sénégal dem ba ñu au niveau nga jékki que le ba est ce que xam-xam existe. Hmm. est ce que xam existe toujours tout ça nous ñu ñu dindi suñu intérêt personnel nous euh, euh, juste pour le bien des footballeurs pour le bien du football du football de Yaraaxwa man loolu laa doon lancé appel d' abord les les les les kii ba pare si gestion terrain bi je pense loolu moom bon je pense que ni ñu ko bëggee lay amee. Hmm. mooy le maire et son équipe mënuñu def fii des millions une centaine de millions ba pare di ko def si ay loxo yoo xam ni euh, yoo xam ni duñ ko duñ ko dox duñ si doxal ni mu waree ba entretien baaxam je pense loolu moom la ñoom def nañ ko sax au devant parce que tous les jours euh, je pense ñoom ñu ngi fiy ñëw.

taxi si poubelle bi bu gisee ku nekk fenn bëgg def loo xam ne du yoon sax nañ ko ñun je parle de dis encore ñun les deux zones man ak le président on va y travailler. ñu ngi si waxtaan léegi bi ñuy ñëw. ba fexe ba créer ay comité de supporters juste pour l' entretien du du stade suñ fi ñëwee du début à la fin ba ñun mouvement nawetaan kat kenn ñu joxoñ ne xoos-xoos bi yéen ko fi def quoi. Alors ah, loolu am na ci solo parce que ñi gars yi foofu la ñuy réglé ci yéen la ñuy réglé ah. que nawetaan est ce que du ko yàq est ce que du ko yàq.

man lay wax léegi ki bind Aliou Seye maître Aliou bi ak livre mu bind ci sur le mouvement navétane nekkoon un grand dirigeant du mouvement navétane mën naa citer ay ñu melni ni Mbacké Seck mi nga xamante il a il a il a géré la commission la communication de la fédération sénégalaise de football et tant d'autres autres mën naa citer ñu bëree bëree bëri yaraax dafa bari ressources humaines mais li président wax sank moy li li problème bi mooy des fois dañuy mënuñu retrouver autour de l'essentiel. essentiel rek la du du problème talent du problème

boo on fa nga nekkoon démb rek da ngay tardé waaw te te boo xoolee tamit ñu mel ni Pikine ay Guédiawaye ainsi de nous dañu am avancé yu rëy yu nga xamante ne ñun ñom suñu ginaaw la waron top té tay ñu ñoy top topp seen ginnaaw loolu dafa interpeller tout le monde à ce que ñu changé dafay am foog mu am ben ben nouvel type de dirigeant. nouveau nouveau nouveau type du moins de de dirigeant pas pas pas ay ay ay personne du bees forcément pas mais idéologie yu bees idéal yu bees voilà. dafay am dafay am solo ci loolu noonu. man yéen ñaar lu ma leen dénk balaa ma leen jox seen kàddu mujj mooy que ni fexe leen ba mission bi mu démarré ci seen naataango yi ngeen nekkoon boobu ba léegi ngeen fexe waxtaan ba retrouvé wu ndax intérêt football yaraax li may wax xam naa ko parce que j'ai vu des gens yoo xam ne bu ngeen àndee liggéeyandoo bon en fait mouvement nawetaan dina am beneen xar kanam dina mën a parce que xam ngeen ko problème mu yaraax division kese la ñu war a bu ñu àndee rek je pense que résultat dina am président bi ngay tàggoo. waaw di leen remercier yéen waa jeunesse personnellement yow suma suma ami suma ami d'enfance depuis eh, CM2 depuis école Lyon man bi may ñëw je pense yow yaa ma indi Yara j'ose le dire aujourd'hui bi may ñëw di fréquenter Yara bobu ñun dëkk dëkkooguñu won Maris maa ngi doon ñëw sa kër jendu donc euh, di la remercier yow di remercier le le le mon collègue président Momar hmm. di euh, waxaat encore une fois di lancer appel encore une fois ñu ñëwaat ñu euh, yëkkatiwaat football Yaraax parce que am na ay personnes yoo xam ne ku mel ni ay Ndongo fay ku mel ni ay euh, Maguette Diop am na ñoo xam ne ñëwaat nañ bëggaat nañ footballu Yaraax développé waat. Mm. te incha allah le talent est là yow par exemple je peux citer un exemple. xëy na soo amoon des dirigeants qu'il faut xëy na tey doo téye micro bi tu fis un bon joueur un très bon joueur seetaan naa la depuis classe. et un grand coach voilà on naa bés bu rëy fii <laughs> voilà depuis nga depuis euh, mm-hmm. Interclass yi. depuis interclasse man depuis âge yi man ak mm-hmm. mm-hmm. depuis nga joué nawetaan fii man ak yow. donc yaa mënuma citer joueur yi ay Issa ay Ndene boo ñëwee Maris ay Malé ay Fabrice ay Abou c'est-à-dire ay Yaraax fi nga gisee ay joueurs yoo xam c'est des c'est des génies. mais may ñu leen fu ko exprimer. c'est-à-dire de grâce je lance un appel aux dirigeants yaraaxwaa ngir yàlla ñu toog nekk benn ñun rêvé ñu nawetaan nekk si kaw football Yarax élite bi nañ taxaw c'est le moment on reçoit ici nos matchs pour que en moins de deux ans trois ans football Yarax jugaat fi mu war a jógee salaamaaleykum wa rahmatulah. président sa kàddu waaw waaw waaw waaw di di di la remercier bu baax euh, coach Iboulaye di remercier waa Antib yi damay jaar ci occasion bi rek di leen remercier ci seen taxawaay ci mu nawetaan parce que match yëpp dañ koy transférer en direct après.

Euh, beaucoup de camp tant temps wu campagne la parenthèse campagne la mais weesu nañ ko man je suis le président de toute la zone et la zone a toujours été une famille et ça continuera d'être une famille Inch'Allah. président ñu ngi vraiment ci uyu si bi ngeen ñu uyu si ak plateau bi voilà beaucoup internet yu Hann TV lii lañ leen une ci émission Pentium en bi pour di xaar saa su bon dire merci aussi monsieur le maire Babacar Meng ak. Euh, commune bi ak sama municipalité yëpp bon vraiment ci yombal bi ñu yombal ñu am accès fii ci defee fi ma émission bi aussi tamit di remercier suma technicien bi di Bouna ak son équipe ak merci beaucoup ak suma benn boyan ah, moom moo def ni naanaan tey muy vieux laay temps yi mooy suma téer quoi merci beaucoup Antv, TV télé askan bi Antv, TV télé askan bi